du Mohamed Ndiaye jërë ngeen jëf bés bi gaynde war a xiiroo dëgg yegsi na l'observateur nee nañu bésub tey bi mooy bés bi war a gën a gaynde wi final coupe d'Afrique Égypte 2019 tey la bu sëtëx ci ngoon jotee ci diggante Sénégal ak Algérie record yéene kay xëy di leen bàkkaka kañaka dolle ko dojji allez les lions la xëy bind dàng ci xëtamu njëkk binde ko nag ak vert son rouge mu di couleur drapeau Sénégal le quotidien nañu coupe bi rek le témoin moom it noonu ne lañu ko waxee ci tubaab lu dul coupe ñu ko gënal la tribune nañu tey la tey la góom di way dëtt baa mu way deret juróom fukki at ak juróom-ñeent ci bi Sénégal nekkee ci football ak léegi tey la ñuy def lu histoire di jàpp ba faw les économies gayndee Sénégal yi waaj nañu ba jekk ngir toog ci kaw footballu Afrique waa Ndakaaru it journal bi mi ngi ñuy xamal ne des ñu ginnaaw ci finalu tey bi dëkk bi foo xool ñoo ngay finalu ak i couleur nationale source waa nañu génération bi fi nekk am nañu tey occasion bind histoire ci wàllu mi quotidien nañu réew mi di déglu wuré wa dem na këng waxi mbag dem na ndañ tàlli lu la ko yéenekaay bi tuddee direct info mel ne ku naan leen bu ngeen xamoon li ñu diggaale di ngeen ñu may lu ñu siggee ci yeneen réew yi journal bi boole ceeg di leen ñaan ñoom gayndey ngir ñu dugg ci histoire soleil national it noonee la leen ko ñaanee entrer dans li si l'histoire Sud Quotidien nañu ngir mën a dugg ci histoire ci ndam lay jaare ndam tey ji suñu digg ak ci final bi ngir mën a am way wu rafet la Sénégal nañu soriwu ko lu néew moo leen tere yegg ci li ñu wuti woon ci Égypte ñoom gayndey Sénégal yi Abdoulaye Diaw ci l'observateur ma nga fay wax gaynde yi naan indi leen ñu coupe bi bala ñuy wuy ji sama borom borom Abdoulaye Menane di Abdoulaye Sow vice président fédération Sénégal bu football mi ngi ñuy waxit ci xët mu njëkkul la témoigné ne Ousmane Tanor Dieng ak askanaw Sénégal rek dina tax ñu rayante ko ba gagné ko entraîneur équipe nationale bu Sénégal di Aliou Cissé ne utilisé ko danañu football final bu rëy gagné coupe bi ci le quotidien mu nañu fa askanaw Sénégal rek jar nañu ko te dinañu ko gagné ngir ñoom finalub tay bi ci diggante Sénégal ak Algérie Sénégal journal bi teg ci di ñu leeralal li tax ba finaalu tay bi wuute ak yeneen final yi muy ci Sénégal di ci Algérie président fédération Sénégal bu football di maître Augustin Senghor mi ngi ñuy wax ci Sud Quotidien ne finaalu tay bi dina neex te Sénégal da koy gagné ca stade international bu Caire ba ñu koy footballé Sud wax nañu ne wàllum kaarange tax na nee nañu bu max bi desee juróomi waxtu dañuy tëj stade bi kenn du dugg kenn du génn ñu génn ci loolee te duggi ci l'observateur fekki ji fa Pape Sarr ku doon football ay jamono la ci équipe bu Sénégal nga xam ji Kalidou Koulibaly da koo daloon 2002 jotul woon na football final bi ndax dañu ko ruusoon ci demi-finale yi ba ñuy football ak Nigeria moom Pape Sarr ngi wax ci l'observateur ruus boobeeg wuute googe mu woon final bi nan la ko dunde wax nañu it Aliou Cissé ma mu bokkaloon ab néeg na ko doon taxawoo ca yooyu la jamono ak it ni ko ci génne.